saa su ndigal yàggee rek dañuy jàpp ne wëratu leen kon ñoom itam ñu ngi leen ci soññ waaye délégué de quartier yi dañ leen ci jàppale rawat na football bi bari na ci dëkk bi trop bi kin mënut a jaar fenn am kersa sax te min xusni islaami mari tarkuhu ma la yaani kon loolu délégué de quartier yi nañ gën a téye seenu njaboot gën leen a yar gën leen a sàmm te lépp luñ mën ci tere ko ci biir quartier yi ñu di ko def